asalaamaaleykum yéen waa Elvision euh, Media euh, tay dañu ñëwoon fi nga xamante ni moom mooy euh, Tëngéej fekk fi match bo xamante moy match bu am solo mais match bo xamante ni vraiment neex na neex go xamante ni technique feñ na fi physique feñ na fi lu bari feñ na fi tay tay nak ñu taxaw ak ki nga xamante mom moy nday mbili gi muy capitaine bi ki nga xamante mën nañ wax ne mom mo gérer discipline gérer lu bari parce que capitaine du n'importe qui lañ koy tek dañ koy jox tay ñu bëggoon ko laaj première question biñ koy laaj moy match bi tay mu football ndax match bu yomb la woon nekkul match bu yomb. waaw tout d'abord dañuy wax alhamdulilah man la El Hadj Meissa Seck xam di capitaine ASC Ngagne Samb xam nga ñu wax ne alhamdulilah alhamdulilah suñu match du yomb parce que équipe bi équipe bu mag la match yi mënul yomb kon équipe yëpp dañuy mobiliser wu xam bu pour préparer ñu noonu li ñu def dañuy def pour gën a liggéeyaat rek gën a amaat doole xam na lii suñu kanam moo gën a métti parce que supporters yi ñoo ñuy sas te noonu supporters la ñuy liggéeyal. parce que équipe bu mag la équipe bu mag la du bu ndaw moo waral lu ñuy def rek pour la fayda la ñuy def pour mën a am ndam. tey nag ki ñu njëkk waxtaanal mooy ki nga xam ne moom mooy président bi parce que euh, la plupart président ASC yi dañu sonn trop trop trop ci ASC yi euh, bon di ci daj lu nekk li ñu koy njëkk laaj nag mooy naka la mobiliser ak naka la euh, préparer tey équipe bi nga xamante ni moom mooy équipe am tey monsieur le ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay di leen sant di leen gërëm parce que aussi lii am na solo. bon lo xamné day dem la dal ñep war ci jot bon ñun aussi vraiment euh, suñu préparation bon comme d'habitude rek waaw ñun mom walu mobilisation sax waxuñu ci côté bobu mais chaque fois dañuy préparer suñuy xalé pour bu ñëwé ñu téggu fiñu wara téggu waaw xamné sport la dañuy ñëw pour out suñu morom ñëw pour out donc ñaar ñuy out bu tassé il faut mu am ku yóbbu ndam que ça soit kenn yóbbu ndam li wala ñu tembo

ci bi nga xamante ni moom moo préparé xale yi ah tey ba ñëw am victoire tey mën nañ ne coach ci moo am victoire mais équipe bi amul victoire tey tey naka ngay wax euh, ni nga préparé xale yi ak yan technique nga utiliser tey ba match bi nga gañu ko ak trois bi à 0 ci wan leen sa doole wan leen ne vraiment match bi yow yaa ko moom ban technique nga gën a ko quoi. waaw bisimilah rahmaani rahim li ñuy wax rek mooy sant yàlla bu baax bon sant suñu ñaari waajur sant sama xarit bi Aliou Mbaye ndax moom bàyyiwuñu quoi franchement bon man lu ma def si football bi rek dama koy mais sur le plan tactique tey boo xoolee yi football depuis plus de 5 ans en cadet à Teungueth SC, en junior à la Saltigué à la en senior tamit Saltigué c'est-à-dire c'est des gosses qui jouent depuis plus de 7 ans ensemble ils ont l'habitude de jouer ensemble dans ce même système di nga gis ne entraîneur yi moom homme par homme mais dama leen wax def leen ndànk rek parce que homme par homme au fil du temps mënoo topp di daw benn nit di nga daw muy daw nga di ko topp di daw di ko topp di daw mënul nekk donc jouer leen rek ngeen calme bon au fil du temps day bàyyi. day bàyyi parce que sur le plan physique ñun mënuñoo football 9 mois par exemple euh, championnat ñëw en nawetaan war a jouer nawetaan muy am espace boo xamante ne entre espace de niveau entre ñun ak suñu adversaire ñu yàkkamti jarul yakabi dañuy def ndank ndank ndank ndank au bout du temps même boudé dee bi bii suñu borom dinañ ko may ñu exploiter ke dem suñu yoon. donc lolu on a joué avec 3-5-2 ou plutôt 5-3-2 bon deux attaquants avec des flèches da ngay gis sa gaay bu c'est excentré non duñu excentré ay latéraux lañ. mais on les a préparés sur le plan offensif à défensif boo xam dañuy ñëw ay piston dem dañuy dem ak ñëw ku ci sonn. ñun la noppalul ci kaw wala noppalul suuf donc noonu rek lañ préparé xale yi donc di gërëm tamit góor mag ngom bu baax parce sama grand frère la boo xamante ne nii en fait li ma defal sax man mérito ma ko jàpp naa ni mérito ma loolu parce que nga nekk sa moroomu doom supposons nga jox ko liggéey bi yëpp toog rek di superviser gis ngeen ko day toog rek di superviser bon mitti na nag si man parce que euh, du ma bàyyi dara parce que li ma sas dafa diis donc bugguma benn faay am si terrain bi boo gisee bi may am sax loolu la su bii amul ba ma calme du ma ñëw toog si banc bi donc loolu laay wax di gërëm population bi yëpp yëpp yëpp nag li ko daggee xale bu gën a ndaw supporters yi sama copains yi sama gars yi bon ñëpp daal en quelque sorte parce que football bi dafa metti ñu tëjee ko li nga xamante ni moom mooy suñu kii mooy nañuy wax ne na ñëpp di def ne euh, sa waay di def parce que euh, nawetaan dafa merti bien vrai que tey yaa jël sa alal di ko ci def euh, di jël sa coono di ko ci def ak sa temps mais moom wane na ne koñam la bëgg wane na ne ICM la bëgg ba mu jaral ko lu nekk tey gis nañ ko tey boo xoolee ci couleur bi nga xam moom la sol ak coono yi muy daj ci si ICM bi ci côté innovation des genre tey lan nga yëg tey sa biir xol. waaw damay nuyu ñëpp quoi avant tout parce que lii ngay gis ne ah bon man damay kontaan chaque jour que Dieu fait si ASC bi quoi parce que ASC bi moo tax bu ñu demee am suñu moyen pour def ASC bi xam dañuy def parce que ASC bi dañ ko teg foo xam ne nii xool duñ ko tikaalee dara moo ñu gudd damay wax ne ASC moo ñu gën a sa équipe nationale quoi parce que xam nga duñ benn du dundee noonu nawetaan quoi ñun parce que Ndiène Sambou lañ gëm quoi xam nga te franchement parler xam nga chaque jour comme li may wax sama gars lu ndaw quoi waaw supporter di wax ne rek supporter aw ñu seen fay aw ñu seen fay dañuy liggéey rek ngir yi ñoom wóor na yàlla tey bi ñu dugg suñu yaram dafa daw te chaque jour nii la ñuy mobiliser woo nii la ñuy mobiliser woo ñi nekk dëkk ba jëng moo ëpp mairie boo demee dëkk ba fi instant yi nii kenn du fa mën a doo mën a taxaw xam nga kon lépp lépp dañuy def rek pour liggéey pour ñoom quoi loolu daal xam nga li kanam daal moo gën a moom moo gën a metti demande ñëpp di defaat une

di leen wax li ngeen bëgg yéen a xam yàlla na suñu borom defal leen ko. supporters yi nga supporters yi am ñu seen fay quoi xam nga moo tax xam nga su lu mu def nañ nañ nañ ko parce que supporters gars yi xër si ASC bi xër googu moo war a ñuy def loo xam ni xam nga mën ñu ko ñàkk bañ def xam nga kon donc xam nga nañ nañ chaque jour daal xoolal yàlla na yàlla dolli quoi xam nga franchement pare xam nga parce que rien à dire quoi si ASC moom